indi ani ayib dafee en tout cas waa Pastef ñu ngi dugg si kan moo nar a ñëw Pastef nag dinañ ko xam dans quelques minutes pour mën leen ko dégtal waaye itam mën a jël seen intervention à travers. waaw directrice kenn du ko dégg. ça va. bon euh, la tête de liste c'est Ousmane Sonko. donc euh, sans surprise et tout naturellement à l'unanimité donc euh, nous avons décidé dans notre liste que avec ses alliés comme nous l'avons dit nous partons sous la bannière Pastef avec les alliés que vous avez cooptés des alliés avec qui nous étions ensemble et qui ont souhaité en tout cas continuer le chemin pour les législatives et c'est une liste inclusive une liste vraiment qui regroupe en tout cas euh, toutes les sensibilités dans sa diversité des jeunes des femmes euh, des plus âgés et sur tout le territoire, donc les 46 départements, les 8 de l'extérieur. Donc et nous pensons c'est une liste gagnante et a, qui va nous donner la majorité, une majorité confortable à l'Assemblée nationale le novembre Une liste, une liste de soulever des vagues non, je ne pense pas, euh, parce que... À cause des, euh, bon, effectivement, nous avons euh, effectuer un processus d'investiture à la base dans tous les départements et dans la diaspora et a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup d'engouement, beaucoup de candidatures, des milliers de candidatures, mais malheureusement, vous savez, les candidats ne peuvent être que 327, titulaires et suppléants compris. Et mais c'est dans le sens de l'intérêt général, c'est dans le sens de l'intérêt de la liste, de l'intérêt du parti et vraiment de projet.

En tout cas, au niveau des départements, vous en saurez plus quand les listes seront publiées. Mais nous pouvons vous dire que la liste regroupe euh, des responsables, des militants, des alliés. Et vraiment, donc, euh, c'est une liste quand même qui en tout cas, ressemble au Sénégal dans sa diversité, dans sa pluralité. Et c'est ça le plus important. Il y a une intercoalition qui va rassembler Djam euh, oui. Sam Sakadou avec les Khalifa.

Euh, bon, nous leur souhaitons bonne tout cas, nous, nous pensons que la liste euh, qui est conduite par le euh, président Ousmane Sonko sera la liste qui va vraiment sans contestation et sans bavure, parce que c'est ce que les euh, changement, les Sénégalais souhaitent la rupture, les Sénégalais la mise en œuvre du projet. Donc pour mettre fin à la gabégie, et vraiment à toute cette mauvaise gestion qui a été en tout cas euh, exacerbée ces dernières années. Donc nous, sommes confiants. waaw man maay mandataire. parce que l'année dernière après vous était difficile de franchir ce, ce Aujourd'hui vous êtes là, ça la dernière fois, euh, on constate que les conditions de cette élection quand même si ce sont des élections législatives anticipées avec des délais réduits en tout cas euh, se font des conditions de transparence, d'inclusivité et l'information est partagée à tout le monde. Donc euh, on a une DGE qui est ouverte à tout le monde et ça on s'en félicite et nous voulons que ça continue comme ça de conforter et renforcer l'état de droit et la démocratie c'est le plus important. yow yaay mandataire euh, liste euh, Pastef. Euh, yaakaar naa compétence yëpp a ngi lu ñu bëgg mooy assemblée nationale boo xam ne dañ koy jubbanti. assemblée nationale boo xam ne dañ koy soppi wute ak lu fi nekkoon assemblée nationale boo xam ne euh, maanaam du liggéey assemblée nationale boo xam ne euh, day nekk loo xam ne maanaam théâtre lay doon mais dañuy indi assemblée nationale bu bees boo xam ne vraiment euh, dina représenter dignement les Sénégalais. contestation bi bari na de contestation bi ndax waaw investiture yi moom yaakaar naa ni indi na engouement. nit ñi ñu bëri à la base parce que ñun dañu choisir daf ay investisseurs à la base ñeneen ñu ñeneen ñi defuñu ko donc ñun dañu daf démocratie interne ñu laaj coordination départementale yi circonscription yu nekk si diaspora yi ku nekk na ngeen déggoo am consensus tànn seen candidat ñu am consensus ñun laaluñu si dara ñu amul nag consensus loolu parti bi euh, dafa obligé tranché arbitré mais lu ci am solo rek lu ñu jiital mooy intérêt parti bi intérêt liste bi intérêt projet bi te loolu yaakaar naa ni moo ci am solo Euh, sénégalais yi en tout cas euh, yàkkamti nañu vraiment lu ñu diggee woon au soir du 24 mars 2024 ñu mun ko mettre en œuvre ñu mun ko exécuter mais loolu pour ñu mun ko def il faut ñu am assemblée nationale boo xam ne euh, day am majorité boo xam ne majorité bu confortable la pour permettre président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement ñu liggéey commencé mettre en œuvre seen promesse. opposition bi teg nañu li nga xam ne moom mooy intercoalition ci département bi ak diaspora bi. muy le groupe euh, Amadou Ba. Euh, lu ñuy xaar mooy changement bi incarné en tout cas par le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye te liste bi mooy mën a indi assemblée nationale ba nga xam ne dina liggéey dina permettre tey euh, voter budget ba nga xam ne président de la république dina mën a réaliser promesse am laakaar naa ni loolu moo ci ëpp solo ñooñu dajaloo nag gis nañu lu ñu mënee woon pendant ñii pendant douze ans ñeneen ñi pendant dix ans douze ans vingt cinq dernières années suñu dajale waatee ñëwaat ànd ñoom ñëpp yaakaar naa ni occasion la nga xam ne sénégalais yi dañuy am vraiment mettre fin euh, définitivement ak système boobu donc loolu occasion la pour sénégalais yi en tout cas ñun euh, taxaw nañu temm pour en tout cas gunge leen ci occasion bi ñu am mettre fin à ce système parce que sénégalais yi waruñu rater occasion boobu incha allah bon du dugg ci détail yu département parce que liste bi <laughs> ñoo ngi pour déposer mais euh, dina suñ ko publier yaakaar naa dina leer def nañ ci ay ñoo xam ne vraiment ñu euh, ay Dakar waa nañu te gox bu nekk noonu nañ ko defee dans tous les départements et dans la diaspora incha allah. Euh, lu tax ñu guddee moom euh, c'est normal liggéey bi vérification xoolaat lépp donc euh, xool dossier yi yooyu yëpp moo tax donc moo tax ñu guddee donc ñëw pour vraiment déposer en conformité avec le code électoral. jërëjëf loolu moom ay waxu euh, waxu kii la rek euh, débat grand place te yaakaar naa ne loolu la rek nekk fii te yaakaar naa ne Ousmane Sonko élection yi mujjee voté la électeur la te éligible jërëjëf. merci. waaw merci waay. a ci ñoo ko ci boppam. Dakar waaw.